baccalauréat 2020 bokk na ci archives nationales yi ndax coow li ko toppoon ci wàllum année blanche ñoom ñi di ndeyum mbind gi mujj ñu si am benn jafe-jafe ci wàllum épreuve yooyee comme niñ ñu ko xamale waaw anglais lañ njëkk a def de mais pas mal tane na rek. waaw parce que euh, li ñuy ñu jàng lañ def quoi li ñu jàng li ñu gis test la ñu def. bon man espagnol laa njëkk def ça a franchement parlé neexoon na trop. mais yaakaar nañ incha allah rabbi lépp lu ñu jàng rek incha allah bu ñu jaxase ñu ko tari ko li ñëw moom xamuñu ko mais moo tax ñu pare yëpp jàng lépp wax ba fu gars yi ñëwee rek fu ñu laal ñu ñëwee foofu ko waaw du yomb nag mais rek xam nga rek waaw. non joué wu si noonu noonu parce que bu fekkee espagnol bi mun mun nga toog seen kër sa jàng ko parce que langue boo xam ne neex naa jàng la moog anglais bu fekkee man mi di def el prime mais quant à L2 bi day metti parce que L2 même mo gëna metti sa S dañuy wax na S mo gëna metti mais L2 bi mo gëna metti est-ce que jéxal won ngeen sen programme. non jéxal won programme franchement sa Sadio jéxul ki jéx programme yu bëri parewul. fële ca lycée Limamou Laye ki di proviseur bobé mom ak ki naataandoowam li ci melni président jury yi ñu ngi xamal ni dispositif yépp yem na ngir examen bobé jaar sa yoon. euh distribué nañu épreuve bi tey ci suba. Euh, fekkoon na ñu jël matukaay yëpp kandaay ñëw nañu bon surveillant yi ak ñëpp ñu am ñu benn jafe-jafe. déjà sag yi boo leen duggee rek gis ngeen sag yëpp benn sag duggul biir salle de classe sag yëpp si ñu ngi si hall bi kandaay également wax nañ leen bu kenn yor portable waxuñu sax portable bu ñu fay mais portable sax kenn waru ko yor donc ñoom ñëpp ñoo ngi si loolu di doxal ni ñu la ko waxee. pare nañu nii sax actuellement mais amul benn jafe-jafe daal bu ñu bi rencontré ci épreuve yi. surveillants yi ñëw nañu ci waxtu bu ñu war ñëwee épreuve yi déroulé nañ ko dans les normes te lépp lu wàllu lu jëm ci wàllu tamit euh, mbas mi jël nañ ci ay matuwaay daal yu yu leer a leer parce que loolu laa njëkk a ba ma ñëwee si salle yi ba ma ñëwee aussi si portail am nañu ay dispositifs yoo xam ne ñu ngi ci saxas seen loxo ba mu set. waaw saali aussi assurer nañu distance yeeg affaire yooyu mais n'empêche de tout de temps en temps dañuy wër saali di xool est-ce que lépp lépp respecté nañ ko daal. kon nak li si rek modi ñu jàllale résultat yi ci yoon ba nga xam ñepp dinañ ci am ay xibaar yu leer ba nga xam kenn du ci am jafé jafé di laccé ndax at mi na waaw wala déet.